waagin gineew ban heure moo jot nii deux heures du matin ngeen nekk fi depuis dix-neuf heures lii lan la lii du neenum neen ndax neenum yàggee nii sama gars lii ku jox ay militant xaalis pour dugal leen ci kaar lu ñu la xaar lu yàgg lu ñu la xaaree ñun. lii gëm-gëm gu mat sëkk moo koy waral lii est-ce ñëpp am nañ ko ku ko am kon coalition Diomaye président raw na yeneen coalition bu yàgg yàgg yàgg yàgg li ci des nii formalité la rek waaye ndam ni incha allahu rabi leer na ba pare fépp fu ñu jaar lu mu guddi guddi guddi nit nañ ñu teewlu xaar ñu ba ñu egg si ñu won ñu won lu nekk ci ñoom ñu gën ñoo ñaax gën ñoo sas ñu war a gën a am taxawaay goo xam ne li ci réew mi ñoo ko fi dindi li gay na bañee mbuum noonu laa bañee lu lëndëm ni dundee yàpp noonu laa bëggee lu leer kon bale bii ngeen di gis ñi tee Sénégal di saltel di tëj di rey di lopp di di yàq njàng mi di yàq paj mi di yàq mbéy mi nit ñi amuñu ndox amuñu liggéey bale bii ñooñu moo tax ñu jóg réew mi à partir du 24 mars bale ba mu set rek une nouvelle conscience de dirigeant installé fii Sénégal ñu doxal réew mi ci beneen anam ci yeneen loxo muy loxo yu set mu doon ñoo xam ni ñu bëgg dëkk bi la. kon coalition Diomaye président mooy la coalition de la rupture dëkk bi yoon doxu fii loolu dina jeex incha allahu rabi dëkk bi luubal gi bëri loolu dina jeex incha allahu rabi. dëkk bi def lu wengi dara du la ci fekk ndax di nga buur kese loolu dina jeex incha allahu dëkk bi ñu fi sagganee mbay mi ba lu ñu soxla jéggaani ko loolu dina jeex incha allahu kon li ngeen def nii moo gën a métti foofu li ñuy xaar le dimanche yéen ndaw ñi surtout teel leen yeewu ngeen dem voté ji dugg ci kër yi wax ak maire yi wax ak paa bu benn carte sar parce que seen avenir ñoom dañu war a comprendre seen vote ban influence la ci am honorable député Ismaïla Diallo di coordonnateur départementalu PASTEF ak bépp leader yi nga xamante ne ñoo nekk ci coalition Diomaye président ñu ngi leen di remercier di remercier militants yi def waral mobilisation bii dafa am loo xam ne ni ngeen ko comprendre di ko sàkku noonu lañ ko comprendre doon ko xeex di jéem a indi Macky Sall pour mu def loo xam ne moo gënoon ci bu muy def le train express régional mu yem sur 26 kilomètres dañ ko waxoon alal boobu commencé ko d'abord nga dekkilaat raay wi mu jóge fu mu doon jóge di dem fu mu doon dem bu ko defee raay fu mu jaar foofu économie dafay amaat te kon bu bu train deewul woon Sénégal kon doo toog ba tey en 2024 ngay laajat loo xamante ne amoon na fi soxla nañ ko ba tey fekk ñi ñi mujjee juddu sax xamuñu ko dëkk bii foog ñu xoolaat ko ci li ñu doon dem nii dem nañ ba mbëkk miir bi suñu responsabilité la ñun ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu jëlaat suñu réew teg ko ci loxo yu set commencé waat beneen air boo xam ne dañuy jublu ci li sénégalais yi bëgg déglu sénégalais ci seen jafe-jafe surtout ñu ànd ak ñoom ak yërmande njiit dafay am yërmande ci askanam njiit dafay am yërmande ci askanam njiit day xool ndawam njiit day xool ay ndawam am ci ñoom yërmande am ci ñoon yéene waaye boo toogee jiite réew nga dema dema dem ba ñu ne la bato bii dem na taa de ay ndaw yu toll nii suux nañu ñu koy lim di ko lim di ko lim ba mu nekk junni ñaari junni ñeenti junni juróom juróom benn juróom ñaar ba juróom ñetti junni xale yu jóge ci réew mi dem dee ci géej ga wax dëgg yàlla war nañu xoolaat dëkk boobu ni ñu koy yore te loolu nag dara waralu ko lu dul ñu ñàkk fula gu mat ba bu ñu toogee di signé ak tubaab yi di liir mu wóor leen ni lii ñuy signé baaxul ci seen askan ñu signé ko quand loraange tegu ci ñun mu mel na duñ koy gal seen leer dafa mel ni amuñu xol nañu yërëm sénégalais yi nañu jubal jubanti te loolu moo tax ma ànd équipe boo xamante ne koo ci gis mën nañ seede ci moom njub koo ci gis mën nañ seede ci moom bëgg réew mi bëgg ndaw réew mi bëgg population yi yéen Sénégal développement boo xamante ne incha allahu rabi dès le 24 mars 2024 dinañ commencé poser les jalons de ce développement-là changement dina am de waaye yéen waa Guinguinéo bu leen nangu mukk rupture bi nga xamante ne dina am au soir du 24 mars am ñu ne Guinguinéo àndul ci rupture boobu fu Sénégal jaar ci fukki at yii rawatina ci ñaari at yi ci injustice ci ñi ñi dem ba mbas am ñuy sàcc alal bi ku sàcc bu ñu la toppee boo feetee buur dara lu ci fekk loolu kenn waratu leen woteel parce que day mel ni li xewoon yëpp yow dañ ci d'accord day mel ni da nga d'accord ci milliards yu ñu sàcc ci Covid 19. day mel ni da nga d'accord ci ndaw yi dee ci géej gi day mel ni da nga d'accord ci mbéy mi sooxe day mel ni da nga d'accord da nga d'accord da nga d'accord ci injustice bi nga xamante ne rey na ay Sénégal yu bari ci ñaar at yi ñu weesu. fula gi nag ak fayda gi mooy bésu vote teel a jóg. voté delluwaat ci kër yi andi maire yi ak paa yi ñu voté nga dellowaat ci centre bi toog nag ba benn xob duñ ko mën a sàcc